asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wax nañ ko fi bataay yi dégg ngeen ko bataay yi mu mel li sëñ bi wax rek mënul leen mës di wax mënul leen di wax ba faw keneen ku leen di wax it te laabiire leen te njaru leen leen di wax mooy topp ndigali suñu borom yi wattandiku tereem yi wattu juróom-ñaari cër yi nga xam ne ay ndénkaan la te bu ci nekk daañu ko laaj ëllëg lu mu jëfe ak fu mu jaar wëllëre lu ñuy laaj la ëllëg wëllërew yàlla ak jaama ci rawati doomu aadama dafa war a dimbandiku ci fàttaliku dee lu fi dee yàgg-yàgg lu mu bari bari lu mu ci dëkk dëkk nit day delloo ci xelam di teewlu bisam di teewlu waxtu sukkuraatam di teewlu génnuk ruuxam di teewlu dugg bàmmeel ak sax gu yàgg ga fa doomu aadamay sax di teewlu xisaab bu taxawee ci kanam yàlla ëllëg ñu laaj ko lépp lu mu defoon fàttaliku tiitum bis penc ba di fàttaliku jéggi siraat ak warug àdduna àdduna day ware ku fi mës a jaar jéem na laa war mu mën ko wala mu tële ko jikkooma du ko bàyyi mukk te day gën a yokk adduna lu fi nekk luy ware la luy ware la tey ak ëllëg lanu mel na lu mu jege daf nu koo sori ba suñ xel du ci dem li ñu sant mu tàyyeelal suñuy cër ba ci sawar lan war a bëgg muy yàlla ak texe ëllëg mu dina ko fàttaloo fu nu toll ndax dina wan rafet rafet yoo xam ne du rafet rafet ci dara du yàgg du sax te musiba lay indil nit ki ëllëg kon doomu aadama war na delloo ci xelam ci ndigali boromam ak i tereem te weneen waru gara ngi fi wu dara gënu la war rawante te jamono jii ñu toll moo di fexe ba am ab yar am ay teggiin yar sa waa kër jàngal leen i teggin yee leen ubbi seeni bopp ci yàqu-yàqu jamono ji ak wari adduna si yar ak teggin kat lu mu génn loola dootu baax te lu ñuy jàng la yar fa mu tàmbalee fa nit ki tàmbalee dox la yar tàmbalee julli sax balay war nga dem bay mu kàllaf boo amee juróom-ñaari at war nañ la koy sant boo ko deful war nañ la cee dóor waaye yara ko jiitu yar moom fa mu waree Seydina Abdullah ibnu Abbas ñetti at ak genn wàll dong la am wala lam ci teg bariwul di lekk ci ñam ni xale yi def rek fu mu séen lu ko neex mu tàllal loxoom fag ko yonente bi sallallahu alayhi ne ko daal di téye ci loxoom ne ci sa kanam yemal sa kanam rek ngeen gis ne kon yar ci ko am ñetti at fa muy tàmbalee jege na sëñ bii di borom kër gi nee na xat zaharat uyubu man maa uddib waxtu sibaahu fa banika addib képp koo xam ne yaruñu la say ayib ëllëg dana fis ñëpp kon nag na nga yar say doom te lu ñuy layoo ëllëg la ko am sa doom boo ko tuddul turu lislaam wu rafet boo liggéey da ngeen ko layoo bu la yeyee du gën boo ko waree yar yaru lislaam yaruloo ko ko mu mel neneen boo liggéey xëy na la ci ëpp ci moom lay dal ci boppam waaye la mu la ci ëppalee du bari ndax boo ko jaaralee woon fa gën dana jaar yoon wu gën te képp koo xam ne kii say waajur yaruñu la jamono lay yar te yar bu jamono nag dara jëru ko jikko ju ñaaw jigul kenn ñetti kaso ga li ci gën a bari jikkoo leen ca yóbbu ñetti safara it li ci gën a bari jikkoo leen ca yóbbu bari na musiba yu daal doomu aadama te jikkoo ko yóbbee kon nag nit ki gannaaw lépp lu ñuy lor ci ñàkk dégg li nu yàlla digal la ñuy jóge lépp lu ñuy jëriñ ci def lim nu sant la ñuy jóge nanu farlu bu baax ci def lim nu sant wattandiku lim nu tere ëllëg nag xuloo dana bari ndax xaq yi dafa bari xaq yi dëkkaale lu ñu war a sàmm la xaq yi mbokk lu ñu war a sàmm la xaq yi jullit ak moroom la lu ñu war a sàmm la te lépp lañuy laaj kon nag lislaam ci boppam jihaar rek la nit ki bu fekkee ne bu xiifee aajowoo wut lu mu lekk bu maree itteem di wut lu mu naan bu raflee itteem di wut lu mu sol bu ñàkkee fu mu tëdd itteem du doon lu dul am néeg ak kër gu muy nekk yemale foofu itteem moog bàyyi ma yem ndax doomu aadama dafa fasante yàlla wëllëre bi muy ñëw ci àdduna te wëllëre bi li ci jiitu mooy jihaar jihaar nag dangay ngay wàcc sa bànneex fële di wéyee naqaru tey ngir am bànneexu ëllëg muñ yonante bi sallallahu alayhi nee na mooy genn wàllu ngëm lu tax mooy genn wàllu ngëm li yàlla digle lépp bala nga koo def na mu dangay da muñ ya ca des lim la tere lépp dangay amul muñ ngir mën koo bàyyi fexe it ba kenn mën laa bañ yóbbaale ci lu neexul yàlla ab jullit yonente bi sallallahu alayhi wasallam mela mu ne al muminul qawiyu xayrun min al muminu daifi ab jullit day melawoo melawoo xam ne ku mu fekk ku ànd ak moom ku jaxasoo moom bu la mënula soppi doo ko mën a soppi moom moo lay jéem a soppi jëmale ca la mu nekk muy lu baax ndax yow mi nekk ci lu baax yow lañu ñu sant nga amul njàmbaar way ca loola dëgër ca fi nga xam ne néewul ci dara du topp bànnee xam yaa ko war di xupp yaa ko war di yee ndax àq la joo xam ne daañu ko laaj ëllëg dañu ne nit daañu seeti jëfam ëllëg ba mu war a dem na mu dem ba aw yoon wa nit poñe ko ne ko amel nga ma xaq joo xam ne bala ngay dem danga ma ko fay mu laaj jooju xaq jan la mu ne bis na ba waxtu julli jot nga jóg dem julli ci dellu si te nee wala mën nañ julli wala fekk nga ma bis may def loo xam ne du noonu te la ma ca génne waxuloo ma dara gannaaw xaq yooyu lu ñuy topp la nit ku nekk war na tàmbalee ci yar boppam ba noppi yar waa këram bu ko defee ñëpp yaru asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu